leen may revue de presse yéen kaay yeeg Alaaji Ahmed Aidara bismillah màggal Tuuba gi dana am waa wala déet tribune yéene kaa ne a am parce que nag mi ngi dépendre ci sëriñ Muntaxa waaye ñi xam ne nag ñi ngi doon xaar ne màggal googe danañu ko annulé waaw wala danañu ko aj nag ba jëmi jamono bu yeboo ñu dem toog alhamdulilah dama leen a comité d'organisation ba de waaw organiser nañ nag ab réunion yéene kaa gi ne waaye gis nga sëriñ Muntaxa di xalifa généralu murid waaw boo xam ne nag yaa ngi dikk ca màggal gu mag googe respectel dogal yi xam ne nag moom kilifa yi nga xam ne ñoom lañ dénk wala lépp lu jëm ci wàllu wér yaram gi lée daal di kon jël loolay dëgg réew mi quotidien ne màggal Tuuba ga Sëriñ Muntaxa Basiru Mbàkke waaw daal di nay jël dogal ba ndigal la wàcc na boog soob li rek illaa Tuuba rek même dee doomu jàngoro jàngi fii aha waaw waaw parce que gis nga màggal Tuuba googee ah sous la ñu wax dogalu xalif général gu mu di jëte mooy ñu nag màggal Tuuba gi la waaye respecté dogal jàpp nañ ko nag ci booru ñëw libération yi ne tasaaroo bi nga ne doomu jàngoro jàngoro tasaaroo ci biir waaw ñeenti junni ak ñaari téeméer ak fanweer ak ak gi ne ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñetti ci doomu aadama ñoo dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun docteur Mamadou Ndiaye ci termine yéene kaa ne déggoo leen ma de mbir mi kon nii muy doxee allure bi ah bu dakkulee waaw danañu jàkkaarloo ak ñeneen ñu bees plus ñoo xam ne ne nañ am kon doomu jàngoro ja maanaam day yokk maar di taali professeur Cheikh Ibrahima Niang ci l'Observateur daal ñuy expliquer rek lan moo tax ba stratégie xam ne kon ñoom dañ koo jëloon te kon ngir xeex wàllum covid bi la proposé ko gouvernement bi présenté ko ko proposition ba dañ koo bloqué maar di taali dañ koo bloqué waaye tribunal bi bloqué wu na Sud Quotidien tribunal ba kay waaw bi nga xam ne ñu koy gréew daanaka ñaari weer a ngi nii ah magistrature bi daal dina koy fipp bi nga xam ne waaw d' Italie dama ne la affecté bi nga xam ah e deful dara lu dul yëkkati ay daan lal ko ci ndodd kilifa diine kon ca Fuuta googee te kilifa diine gi daal lenn la fa woon jël juróom gi nag yaag yooyee di leen bàyyi ñuy dugg ci ay toolu jàmbur waaye bu mujj bi groupement boo xam ne ay jigéen a ca ne ñoo dem ca kanamu tribunal tribunal ba daal di daan sëriñ bi kaso boo xam ne du ko tëdd bale ba ne du ca daal exécutif ba waaw ne ngóor joo magistrat lim def koon ëpp na la ilaha illallah le soleil yéene ne nees nag ba wàllum tourisme gi ñu dund laat ko waaw ngóor gi kay tourisme gi ci biir réew mi la yaakaar laa la wax waaw googee dootul yàggati de ñu baree bari kon danañ leen dàq maar di taali waaw waaw parce que hôtel benn client dañoo vide benn ñaar roppalaan di avion yi xam ne ñu ngi dem di di vol commerciaux yi dañ leen a si standard maar di taali ñett bor bi nga xam ne moo am nag ci wàllum covid ji nag ëpp na yéene kaa gi ne te du nguur gi dane woon fukki junni lay bëgg waar la doy kay direct news nee na mooy beneen scandale di musiba baama kumba ci wàllum financement wu masque yi ak der pasar bu der ah ma ngay yokk rek tojaange yi nga xam ne kon moom la nekkee daala wax mar di taal parce que nag ginnaaw sàmmkat la waa deer bi dëbb li njaa mar di taal yi laa ilaaha illallaah xoolal ma beneen projet yi xam ne waa deer ak Pape Sarr moom lañ doon tiitaroo mooy jaay ma mburu furaas daal di xideen ay milliards yi milliards yoo xam ne ne koy def ci wàllum deer ji la yaakaaroon ne wàllum chômage bi dana wàññeeku kon ci Sénégal gi furaas a yokk enquête yéen a kaay waaw nee na nguur gi dee fas yéene wu la déclassifié a millimètre carré laa la wax ca àllu mbaaw bi loolooy dëgg de wal fa jëri ne coowal suuf sa dox nag ca diggante doobeen ak waaw suuf sa yóbbu lu tolloo fukk ak juróom ci ay doomu aadama ca kaso ba ardi Italie la ilaha illallah dama ne la ate kay tribunalu Thiès la ajjuma bii di ñëw laast e, frankolaayu nag ca suufal dugaar gee waaw ay militaire ñoo ba ca bërëb saax toog eh way sa waaw wuyu yi nga xam ne nag maanaam ñoom ñoo ko def moom Fatou Ndoye waaw gars wax nañ lu doy waar parce que Ibou Thiaw day nee ndaw si dañ koo takk ak bu daa àndoon fitna yëngu lool Moussa Diallo waaw nee na maa ngi taxaw ba Abdou Diaw mi lé di làmb weenu ndaw si yaayu ndaw si nee sama doom ji daal nee dañ ko faa dóori kurpeñ ba maaref day taali ba léegi loxo yeeg tànk yaa ngi noonu tërgën papaay xale bu jigéen bi ci lee si ko yéene kaay day waaw nee na société sénégalaise bi yëpp ñoo taxaw parce que xale yooyee jigéenu Sénégal yëpp lañ takk jigéenu Sénégal yëpp lañ doon làmb seen i ween ardita jigéenu Sénégal yëpp lañ yëkkati koon seen i yëre jigéenu Sénégal yëpp lañ def naka sudul noonee yéen dee dugg ngeen ni ruba tribune yéene kaa ne troisième mandat waaw waa CRD ñoom Mamadou Lamine Diallo ak Abdoul Mbaye Thierno Alassane Sall waaw yekk nañ lu mel ni xamee Alassane Dramane Ouattara mi nga xam troisième mandat ba 2012 nga xam ne ay nit ñu bare bare ca dee Boubacar Camara daal di ne disqualifié mi la parce que xam ne Macky Sall mën mi la est-ce que lu ko dugg waa CRD ne yàgg yàgg dana mu saleeral yàggatu les ko yéene kaa dee di pataaral létarge bi nga xam ne moom la PDS nekkee Karim Wade mi nga xam ne kon moo fi nekkul ak Macky Sall waaw waa PDS France yée nañu Abdoulaye Wade yëngal nañu Karim nee nañ parti bi ci boppam a parti d'opposition foog a dal nag Karim a dellu ah a loolooy dëgg waa kër Ousmane Sonko yoo yée Bruno Derneville Mohamed Ayib Daffé ak ñeneen ña sax waaw nee danañu xeex ba dee ngir élection yii kenn du ko ajaat nag laa la wax gën a sori ñaar fukki fan juróom-ñett ci mars 2021 wax élection yoo yi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 gis nga Covid ji. Mhm. lu leen neex profitoo ca def. parce que lu waay wax ñu ne la bëggoo réew mi. Mhm. gis nga coowu ñoom dugaar yeeg toobee nii nga gis ni yëpp. Mhm. contexte bii mu am nii. lu tojaange gi bari bari bari bari bari. Covid ji nëbb ko. le magistrat Ngor Diop mii tey ca bët gànnaarug réew mi. UMS ñoom Souleymane ko ak lu ñu yëngal yëngal yëngal yëngal laaji Covid dina bugg. Moubarak mm-hmm. Lo essentiel ajuma léegi lañ ko doon tegaat seen TV nee na gis nga sibiru bi paludisme. Mm-hmm. li muy rey. Mm-hmm. Covid bi reyu ko. voilà gis nga ñuy dee ci cancer. ah. Covid ji reyu ci xiif mais xoolal loolu loolu politique suñu état yi la. il faut ñu gëmloo ñu ne ñu àdduna tukki na Ebola gis nga ravage bi mu jot a def. ci diir bu ndaw. mais rekkenta gaa yi taxaw ca. su ma juumulee benn kaala woon fii te nekkul doomu réew mi gannaaw wala lañ ko fi faj ba mu wér ñu génnee ko gaaw dégg nga. gaaw wax ja jeex mais mbir mi fi mu toll nii. dañ ciy profité. gone yi toobeen yi fukk ak juróom-ñeent ngi ne gars yi gàddu leen yóbbu leen tribunal denc na fi nekk nii ci biir kaso bi mais kenn du ci wax xam lu tax parce que Covid jël la ñuy jël daal di koy jiital pour nit ñi fàtte lépp li xew ci sous région bi sax ñun dañ cee war di wax parce que Sénégal Sénégal nekkul n'importe quel pays fii alaaji ci suñu tund wi. Mhm. sur le plan diplomatique sur le plan politique sur le plan économique et cetera Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni cosaanam la capitale de l'AOF gi mu nekkoon daanaka moo ne ci deret ba léegi nit ñi dañoo respecté am na yoo xam ne bu fi xewee sax. ñun dañoo war di jël position. bu ñu position far ci bërëb mais dañoo war a wax. wax Sénégal nekkul réew moo xam ni dara day xew Afrique soowu jant ñu ne pati noppi ñu noppi. non non non Yaya Jammeh bi ñu bëggee ñu dem Macky kenn xaaru ko mu wax. <laughs> déggoo ma de coono lam ca daj. te assuré wul woon sax président su kuréel gi nga xam ne alaaji ñin moo ñu boole. Mhm. mais gis nga taxawaay wi ci Sénégal taxaw keroog. Mhm. na jàmme dana dana wàcc. man kër njëkk a wax. Mhm. balaa benn benn ministre affaires étrangères di wax. ma ba pare fullaak fayda ji. yow deme woon gàmbe sax. lu fa xeetoo alaaji ak takk der lu fa xeetoo ak oto. administration Sénégal wi alaaji oto desatu woon fii diggante batrin ak ak ak fii réew mais parce que tout simplement mbir ma fa mu toll kii farul ak ñint li mu def du yoon mais am na ñoo xam ne tamit li ñu def du yoon Alassane Dramane Ouattara lii muy jéem a def mook Alpha Condé mbiru caaxaan la yoon teguñu ko fenn bëgg fi briguer un troisième mandat yow nga ne du yoon. du yoon de. Covid ji tax lu ne ñu bëgg koo fàtte. Dugaar ñu ne ay militaire ñoo ñëw ne sax ci seen terrain. Tobeen gee for nañ ci ba yi ñu ne daanaka genre règlement de compte la ndax mi mosoon nañ faa dugg ci lu bokk ak lii nii. jàppante fa ak ñoom jàppante bu miti miti miti. Mhm. ba gendarmerie am ci ay blessé. waaw ba gaañante am ci koor gi. ci gi.